ci yëfi boppam nee na ñun dañ koo bëgg a toroxal mu woo ay doomu jàmbur lu tax wootewul tey manifestation parce que jàpp na ni ko garde na éligibilité léegi ñi ko toppoon di ko défendre ci loolu ñu yaakaar ni que li mu perte moo ëpp éligibilité li mu perte mënatu ko jënd fi may daanele mooy ñun def nañ appel mooy deuxième mi moo tax ma ni jeexu beneen bi ci des dégg naa leen ñu naan xaalis xaalis ñun yàlla dañoo teral te duñu dellu ginnaaw ci ñëw ñi ñëw doon ma laaj ndax mën naa dindi retirer sama plainte dama ni ko kooku dafa jàppoon ni man mën naa am ay problème parce que moom dafa am ay dafa am ay capacité yu ñeneen ñi amul ma ni ko man bi may xale moo tax xale looy def ci kanamam dee ko def te di fàttaliku ni ko xale ngay yar man bi may am juróom benni at 1982 loo xam ni tey te ci samay mbokk samay waajur jàpp nañ ni fàtte na fàttalu fàttalikuwuma ko 82 dañu jàpp sama papa aéroport parce que dirigeant grève la woon temps yooyu ku sant Seck euh, kii ki Seck te dëkk euh, non waaw kii Assane Seck papa yi ministre de moo nekkoon moo nekkoon ministre des télécommunications et des transports ñu jàpp sam papa parce que dafa bokk ci ñu doon jiite grève temps yooyu boo déggee ambulance wala moto tombe mort da ngay fëgg say nopp ñu wax journal ni jàpp nañ mbay Niang syndicaliste à l'aéroport bi ngi ca kaar ba mu doon événement bu rëy Jurbel nit ñi di ko wax ba ma xamee sama maam la mu wax sama papa ca kaso ba ci laa xam ne àddina amul dara lu gën dëkk àdduna àddina amul dara lu gën ngor àddina amul dara lu gën maandu parce que dafa dem fekk ko te après la comprendre ni sama papa moom problème am yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp du doomam du du jabaram du xaritam du syndicat bi mooy yaayam nan lay gise mbir mi loolu moo nekkoon problème am sama maam egg ni ko bu fekkee dëggalatee fii deewal fii bul génn de na fa dee ñi la wóolu ba indil fi bu ñu la wóoluwaatee deewal ci lii man ci loolu lañ ma yare man loolu lañ ma yare lu dul dëgg rek du leneen donc loolu laa bëggoon leeral di wax ni que xaalis bi ñu ciy wax maître defe naa dinañ jël disposition yépp pour que huissier bi bu affaire yi génnee rek ñu saisir këram xaalis bi dañuy laaj ñu yokk ko ba 9 milliards lañ laaj. démb dañuy laaj ñu yokk benn dërëm du dugg ci sama njaboot benn dërëm du dugg ci ku ma ku yàlla wax ni dama ko war a dimbali benn dërëm du ci dugg xaalis bi lépp lu ci ñëw dañ ko xaaj ñaari pàcc lii ca ndongo daara ya lii ci victime yi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko créé ñi ci ñi ci ñàkk seen bakkan ñi ci gaañu ak ñi ci lor donc lépp lu luñ ko mën a yokk rek nañ def la ca war tribunal yokk ko ñu joxe ko soxla wuñ ci ñaar dërëm moom la ngoram di jar ay daw ñun suñu ngor amul njëg parce que jàpp nañ ni ku ko jaay sax doo ko amaat moom la di dignité moom moom lañ mën a jënd ci ay nëbbatu ñun jàpp nañ ni dee moo dee léegi ak sa ngor moo gën dund ca ñàkk ko